amna li rek mo taxone tey ci suba euh, ñu def la communication pour demander euh, vraiment li nga xamanteni mom moy euh comment ça s'appelle encore euh, couvre-feu bi donc ñu tegi ko parce que dafa mujj jur musiba parce que contraire li ñu bëggoon moo am waaw dañu bëggoon sénégalais yi bañ a jàpp feebar bi ci wàllante bi ci jegante bi ci riisonte bi ci kottante bi ah, ci ci buuxante bi ah, mais gis nga euh, mesure bi mais contraire bi puisque les sénégalais aujourd'hui sont là euh, euh, dans ci périmètre carré hein, donc des centaines des centaines gens gens sont ndaw ngi kenn ci wala man dama mujj masque parce que bëgguma yor masque ci masque ah, donc mujj sama masque le risque donc mais ñaata ñoo yóbbaale virus bi bu fekkee mu ngi fii ci biir nit ñi ñaata kenn xamul yàlla rek moo xam est-ce que mën na continuer 24 euh, heures sur 24 que qu'on puisse euh, vivre en tout cas cette situation et tout en mettant dans la tête que ni dañuy xeex benn virus boo xam ni dafay bañ ay nit yi dajaloo amul sens bu njëkkee loolu la xoolal tey nit ñi ni ñu dajaloowee tey nit ñaa ngi nii ku nekk ngi nooyi jox sa morom ah waaw